di ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di amati mbégte kontaan te jàkkaarloo ak yéen ni ngeen ko xamee ñu ngi màggalu Touba édition 2022 ñu ngi fii nag ci Ndindi kër euh, Serigne Askia Touré mbokk yi kooku ku baax ku nekk da ngeen ko fa gis ndax jikkoom ak meloom ak ni muy taxawee ci màggaluk sëñ Touba gi tey nag euh, ñu ngi fi fekk ki nga xam ne mooy Serigne Abdoulaye Diop Xaas ngeen xam ko di borom baax di taalibe Serigne Touba nee na ma loolu moo ëpp lépp doole ci man taalibe Sëñ Tuubaa bi ma doon ñu fekk kër wëllaleem xaritam kër alaaji Askiya alaaji ñu ngi lay nuyu di la ziar maa ngi leen di fay macha allah di nuyu mbokk site internet yëpp mm-hmm. di ñaan suñu borom defal ñu jàmm defal ko réew mi di wax rek man kay li ma jaaxal mooy fi ñu dem daje. waaw kon bisimilah am na fu ñu daje. waaw moom ma jaaxal ñu dajewaat fii. waaye lépp tawféex la rek. Mm-hmm. waaw ni ma ko waxee ñu ngi màggal Touba ku la xam xam ngay taalibe maam Cheikh Anta. Mm-hmm. borom Daaru Salaam di taalibe Sëriñ Touba. nga am ci yor yooru màggal bi. waaw mooy li ñu rek man damay wax ni du ma dugg Touba te jaaruma Daaru Salaam. ba mm-hmm. ñu ko dem falaa fanaan man damay wax ni même bu doon bisu màggal damay wàcc Daaru Salaam comme mooy sama bunt fa laay ñëkke door ñëw ci biir kër gi am kontante loolu ci bi yàlla mayee tal ba ñu fekkee kook jàmm di ñaanal ñi nga xam ne daaw ñëwoon nañu te ñëwuñu ren suñu borom yërëm leen te xari leen aljana di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi des yàlla may leen gudd fan ak ñëpp ñibbiwaat ci jàmm ci barke yonent yàlla Muhammad di kontaan rek di wax su màggal moom ku ci nekk rek li nga leble moom ngay fayee ko mooy li ngeen def ak man li may def ak li ñuy def ñàkk mi ñu fiy génne lépp ñàkk yiw la rek moo tax ñu nit ñu jógee ba dëkk ñëw ut si yiw pour delluwaat macha allah nga ñëw tey sa kër wóllare sa xarit Serigne Askia Touré seen diggante yéen ñaar ku waaw sëñ Askia muy nit ku baax nit ku dal xam nga àdduna moom man damay wax baax ak dal rek moo fi ne ndax lépp loo jaay ci àdduna ak lépp loo doon ci àdduna rek man boo dalee wàcce sa bopp rek mun naa ànd ak yow parce que man loolu laa gëm sëñ Askia aussi noonu la mel wàcce na boppam dal na gis nga ko bu toogee ci base bi sax ku ñëw mu ngi kaf mu ngi ree mu ngi waxtaan mu ngi def ni te loolu mooy àdduna parce que ñun ñëpp benn lañ te wërsëg moom suñu borom da koy jël jox ko kii jox ko kii mi gën kenn wërsëg moom mbirum suñu borom la macha allah muy jëm ju baax aussi oyof soxnaa mi di nit ku baax ku oyof soxna Ngoy yàlla dogal ci bisam bi mu doon def muy bindoon ma ci invitation bëggoon ma ñëw boobu nag ma xew a wéré di moo tax tey ma ni daa jaayante benn yoon jaarale fi ziar sëñ door a jàll li internet yi wax mooy yéen ñaar da ngeen a xaw a bokk biir ci wàllu soxna si gis nañ ni muy def soxna Ngoy noonu ngay dof madame Diop suba ah loolu moom xam nga sa soxna moom sëñ bi loo ko mën a defal defal ko wàññiwul dara de gis nga tey jigéen ginnaaw bañ ko muuree mu ñëw sa kër yaakaaratul kenn ku dul yow na la gënal moom sa bopp jigéen dëgg-dëgg war na laa gënal sa bopp loo amul amoo ko waaye lépp loo am mu wóor la ni boo ko defalee mu bëgg defal ko ko mu bëgg man de wax dëgg yàlla lépp lu ma xam xanaa kay li ma mën a gul moom mais lépp lu ma man moom ci kattanu sama borom naa ko defal macha allah. bi ma ko laajee ne ko daaw. Hmm. ak ren bi màggal bi bi moo nekkoon soxna Ngoy nee ma ren ay jéggi dayoo ndax daaw soxna. ko seede woon mais ren moom moo demal boppam sax ah gis nga waaw wax na dëgg parce que moom moo xam la muy defal soxnaam ak li ko soxnaam jëriñ xam nga àdduna dafa bëri ñoom dañuy siise ci biti li siise ci biti amul njëriñ gis nga nit ki lépp lu ko yàlla may yéene ko ko boo ci bëggee am bëri na tey ku naan ko lii warul te billaahi bu ko amoon defal ko soxnaam léegi nag li may conseillé kooku comme amagu ko da koy ñaanal yàlla jàppale ko sunu borom dina ko dimbali moom jox ko lu mu jox soxnaam loolu rek moom moo fi nekk cant bu la suñu borom may dara foog nga sante ko nag sëñ bi sante ko nag mënta wees nag nga di sa soxna defal li defal li lépp lu jigéen jigéen moom lépp loo ko defal rek jomb ko macha allah. am ci màggal mais actualité nga nekk nit am ci hmm. xew fan yi boo leen doon dénk ñoom ñi nga xam ne ñoo fa toogal ci gis ni ñuy doxalee. waaw xew naa ci am gàcce tuuti nag. Ah. xew naa ci am gàcc tuuti bi mu koy seetaan ndax damay wax ni xam nga. àdduna bu la ay nit jëlee wala la wóolu fal la kooku baat ya nga fa toogee dafa rëy toogoo fa yow rek léegi nag comme da fa toogee nit koo xam ne nit ki nit ni bépp baat boo xam ne képp ki bala nga koy voté da ngay am ci moom jikkoo xam ne kii doy na nga voté ko kon sa jikkoo nga xool ci moom ba doy ko léegi nag boo tax déception des fois da ciy am man bi ma seetaanee dama am kersa walaay su ma nee la àggale ma ko doog doon parce que li ñu dem ba dama tey ñun fa nga xam ne fa la yaakaar foofu la ñu doyloo. bu ba gis fa yeneen it après da ngay da ci réew mi daal. ci mhm. ñoom conseil bi ci lan lan war a taxawee ndax ndaw ñi euh, askan wi laay wax sax ñoo leen doyloo ba teg leen. man damaa gëm ni nit ki lépp lu mu mën a faj war na koo mën a faj ci yar ak teggin. yar ak teggin lépp lum la mayul du la ko xañ gis nga assemblée loolu ñu def yëpp baax na de waaye li gënul nit ki mën nga koo wax kàddu yoo xam ne tey kenn du ko dégg xeeb la te moom ñu ko wax dina xam ni dëgg nga ko wax doon nekk dëgg gëm ko mais tey am na coom boo ko defee yow da ngay dem ba lii lay tiitloo ci sa réew mooy da wax ñii nga xam ne yaa leen fa teg ngir lii par exemple ñu toogal la fa yor baatu askan bi mais baatu askan nag du xeex ak xuloo sëñ bi baatu askan kay réew mi jàmm lañ fi soxla ak dal ak teey léegi nag comme foofu la ñu war a voté yooyu yëpp ñoom ñoo jaadu ñu xoolaat seen jikko xoolaat seen bopp xam ne nii luy jeex lay doon kenn ku ci nekk nag nga xool sa digganteek sa borom nga xam ne tey lépp loo xam ne def nga fa ëllëg yàlla dina la laaj lu tax bu kenn nit tax ngay def loo xam ne wóor na la def nga ko te fa ngay tëdd kooku du la fa fekk. loolu daal laa am lu ma ci wax. souvent Abdoulaye Diouf Khass ñu gis yenn saa yi ñu dal ci kawam ci internet bi. tey dañoo màggal si tey dañoo màggal si ko gis mu tontu. déedéet tey xool. wax ci daal day bàyyi mu jàll. tey tey dañoo bàggal si. waaw ziyaari suñ tubaab xam nga xam nga dafa am loo xam ni eh, xoolal xoolal. bul déglu bul déglu nguur si. dafa dafa am loo xam ni ñun dañoo ñëw màggal si tey ziyaari suñ tubaab. Eh. tey di ci dàq mooy. comme dañoo ñëw pour ziyaar si. waaw nañ ziyaar rek ñu ut si yiw xanaa duñ ut si yiw nag di tontu ci di ci biti. du doon tontu sax waaye dañuy gis rek souvent wax ji day bari te duñ dégg. may te dañuy wolof dañ naan benn lay pàq. waaw mooy ay jàppal ni la Serigne Saliou Mbacke waxoon nee na bu dee luñ la waxal nga tontu bis dina jot ñu waxal la tontu woo mu ni béere tontu woon na kon bii moo ko def Sénégal nag kaama la de bu dee dañ la waxal nga tontu mhm. ci ngay dëkk de moo du ma tontu kenn te nag giñal naa la ci alxuraan képp ku ma waxal it baal naa la man loolu laa gëm parce que nag li li li li li wax ñaar moo ci am gis nit ki doo békki sa bopp xam nga sa bi doo bëgg ci sa bopp ba pare di toog ak keneen di ci di ci kii sëñ loolu dafa doy waar loolu kenn ko def ba da góob loolu moom. macha allah waaw ci loolu ah. kon comme dañoo màggal. waaw comme dañoo waaw dañoo màggal maas jot toog macha allah di gërëm maas di gërëm Seydina Azim di gërëm euh, mboolem site internet boo xam ne ñëw na fi. di ñaan yàlla defal ñu jàmm ñu ñuy boot ci jàmm rek waaw bi pro moom macha allah ñoom moom xam nga moom laa yéen da ngeen am responsable gis nga ni liggéey ci màggal gi ni mu rëy waaw loolu mooy yiw tey imaginer ngeen fii ne li ngeen dem di jël lépp da ngeen ñëw di ut si yiw waaw sëñ Tuubaa moo mel noonu sëñ Tuubaa moom fépp da koo fekk te billaahi li tax ngeen màggal si lii di ngeen xam ne sëñ Tuubaa rek a bëri doole kon nag bu ñu dara tax ñu yàq màggal gi nañ ñëw euh, bernde lekk naan te jaamu di ko sant yi di ko gërëm <laughs> moom ngay màggal foofu quoi moom la sa xarit la gis naa loolu moom dafa far ba mu mais amul solo incha allah waaw waaw benn lañ may far nga rek waaw amul problème lépp taw feex la jërëjëf bëgg naa ci yéen ñëpp macha allah di ñaanal yàlla jaajëf